sa yitte yëpp it mooy doomu aadama yi moo tax xam naa ne bu ñu fi demoon ba minuit it bu lay lor it da nga nu xaar waaye ñu ngi lay jéggulu ci loolu aminte di la nuyu di la ziyaare di la gërëm ci say taxawaay di ñaan nga ñaanal ko ci au conseil bii nu ko dégg ndam li ci Ousmane Tanor bëggoon ba Ousmane Tanor demee ba yàlla jël ba kanam yàlla na ko yàlla yërëm moom mu mottali ko yëf ya rafet ba président di falaat joxaat ko ko loolee kat bàyyi na la ci xel ndax xam na fu sa ñaan toll waaye bàyyi na la ci xelim ndax fu sam xel toll université yi ñuy tabax ak école yii ñuy defar pour defar xeli doomu aadama yi bañ xam lu mu xel di jariñ rek ko waral te xel mu gët ku lay déglu xam ne xel a ngi ci yow macha allah ku la jege itam rek fas yéene loo xew le mu ne ci looloo waral nangami at bañ la dénkee lii ñu la dénk ak léegi muy porte parole tax na nag moom coow li bëri na kër gu wa dem tey gaañ a ngay xëccoo porte parole damaa xamul nag ndax danañ par dañ ko porté yow ni nga koy porté mu waaye xam naa daal sëriñ ba la ko dénkoon ak sëriñ bii fi ne tey kenn ku ci nekk jàpp na ne boo nekkutoon porte parole lu bari dana tardé loola kat bu la ko yàlla defalee ci askan te magoo ci waaye gënoo cee nekk ndaw cër la bu la yàlla dénk déglu nañ la it barki démb bi fi président Macky Sall ñëwee te dénk aminte lii mu yore waxtaan wa nga fa waxtaan ak na ko tënke ku gëmut yàlla xam ne bu euh, lu weex weexee neel weex na waaye bu ñuul ñuulee ñuulal mënoo loolu ba nga daaneele nag kuy doomu soxna ku ne boo doon mbubb natt na la te ëppoo manki woo yàlla yàlla dolli la sutur màggal gii nag aminta ku lu mu fonk la moo tax mu boole parti bi boole au conseil bi bërki démb ba léegi ñi mën a wax ak mu ngi wax ak ñoom ne leen nañ fexe ba ñu yendu ji tuubaa kon màggal gi màggalu àddina bépp waaye moom day xam na ci ab cërëm ñu di la ko dénkit ñun au conseil yi ndax ñëw nañ fii ñun fekk la fi ànd ak président assemblée bu nekk ñëw nañ fi ànd ak Ousmane Tanor waaye moom mii day bi ma dikkee remplacé ko itam matale na ndax au conseil boobu fukki doomi soxnaa fa nekk président leen tànnal boppam sëñ Xaadim mii looloo tax mu nekk fa maam Thierno Mbacke looloo tax mu nekk fa Seydina Isa Laay Caw looloo tax mu nekk fa man mii looloo ma ca boole Mohamed Niass looloo ko ca boole ay dara looloo ko ca boole de sorte que tey boo demee këru diine yëpp am nañ ca waaye ñoom nag ñu am xalaat bu toll ni buñ dematee ci bésu diine nañ tënk kàddu gi yëpp jox ko këri doomi diine yi nekk ci haut conseil ba ñu wax ko waroon naa jox tey ki ko nekkal fii mu wax ci parti bi waaye Morane ñoom ñëpp danoo bokk rek ne nañ ko def genn kàddu ñi ànd ak Aminta tey di au conseil yi sëñ Alioune Dia doon wax mu waxal leen loolu moo waral ñu tënk ko jox la ko waaye kon nga ñaanaloon Aminta yàlla na ko yàlla dolli wér yàlla yàlla yokk sagam yàlla yàlla yokk suturaam waaye nga seede daal na ñun ñi nga xam ne ànd nañoo ak moom ci wàllu doomu soxna ñu jox ñu kàddu lu fay suñ cër nag jox nañu ko lépp lu muy dugg ñun ña ko cay xalaatal ne ko nii baax na waaye dañu fekk mbaax boo gën a ci moom kon bu ñëwee tey ba heure bii mu dikkaat ci yow na nu ko ñaanal ñaanal au conseil bi yàlla may ko ci ndam nga ñaanal parti bii mu jiite it yàlla taxawu ko te dimbali ko ndax parti bii di parti socialiste euh, damaa jàpp ne bu doon am tàgg parce que dafa damaa mën naa wax ne fii la ñëpp naawe xanaa keneen ku ne kay da naa wuti garab goo taxawi waaye moo doon tàgg mi ñëpp naawe yàlla dogal na nag kon tey loola rek doy na sak moom mu jiite ko ah yàlla dimbali na ko itam moom dong moo mën a jóg tey dajale au conseil bi dajale parti indi leen ñëpp àndandoo ñu nag nangul nañ ko loolu ñun ñuy au conseil yi léegi laa koy wax ne fàttaliku ko ne ko mbaxana ak kol yokkutub sañse am du fee nag damaa waxoon ne bu mbaxana ma xonqee boole ca ñu kookol ga xonq nag mu def ko waaye damaa defe ne bu mbaxana ma yore couleur bu bu giir yi ak bu ñuul it ak kol gu weex li sëñ basit day yàq day defar sañse bi rek kon nag ñëpp sant nañ ko waaye nun daal ñu ngi lay ñaanal ndax ba ñu xamee léegi tey dal booy waxtaan kuy doomu soxna ku ne gis ci boppam li Serigne tuubaa bindoon te boo ko nettalee nit jariñu yi jamono joo ci waxee ba pare waxoo waa Touba waxoo kam murit addina bépp war nañ cee mën a jëfandikoo. loola nag yàllaa koy may nit de jàng ba ne ar joxewu ko wër dajal daara yi joxewu ko waaye yàllaay joxe nit am lu mu def ci moom te jox ko ko loola nag ku ko xeeb ku ne dangaa gisul sarwet ci biir picc yi. képp ku jël sag fiit naan maa ngi fiir yi ndax sa wet laay seet boo muy doo ko jàpp bu bërës bu buusa yëpp gare woon sarwet faale wu ko moom day fekk nag yi képp ca nag yi rek mu teg ci koom lekk lekk ba suur ta dara du ko ci fekk yàllaay dogale loolu yàlla na yàlla dimbale yàlla na yàlla taxaw kon daal ñoo nga doon wax rek ci turu aminta kàddu gi gën na gudd waaye law xam nañ fi sa yitte toll yàlla yàlla dool dolli ñu jàmm nga ñaanal ñu kon buñ fi jógee rek ñu delluwaat ci jàmm màggal gu ñu mas a màggal yàlla na ko guréel gi ëpp jàmm yàlla na ko ëpp itam xéewal ci barke yonent bi salaahu salaam. mu ngi dellu am nuyu bu baax a baax di ko teg ci loxol présidente au conseil soxna Aminata Mbengue Ndiaye ak mboolem délégation bu ñu àndal bépp bàyyiwuma ci kenn te bu ma ci tuddee Serigne Aliou Dia ñu doon wax léegi tudd ci Abdoulaye Wilane tudd ci ci. alimaane ak soxna Ayda Jaawara ak ñi ci des ñëpp daa bàyyiwuma kenn ñu ngi leen delloo am ñoo soxna si di leen sant bu baax di la gërëm ndax li jëkkoo ko def tey ñëw nga ba taay ànd ak sa xarit ba suñu xarit ba Ousmane Tanor Dieng yàlla ko suñu borom jéggal te yërëm ko at mu jot yaay da ànd mu am kóllëre ci yow ak cofeel ci yow yooyu tamit nga matal kóllëre loolu sa digg moom kon nag bu yàlla defee mu dem ba àdduna dox ba nga ne ca bopp parti bi nekkaat ci bopp au conseil bi nga ñëw màggara si nii rek nga ko daa defee kon ñu ngi lay santaat bu baax di la gërëm ndax li ñu boole ak yow bari na ginnaaw kóllëre gi lu bari bari na yow ñu ngi lay ñaan suñu borom wéral la kàttanal la ba nga mottali émission bi ni ko bëggee di sant ñi nga àndal ñëpp suñu àll yu kàddu yi rafet na lool moom nit ku baax la at mu jot nii la koy defee Abdoulaye Wilane tam moom itam gis nañ addiyee teraange yëpp ñu ngi koy sant bu baax sëñ Mor at bi dafa nekkal waaye di beral nuyoo nag alimaani mi nga xam ne sama digg moom adduna sépp xam nañ ko muy nit ku baax am ci man ak cofee lool ba àgg ci ëpp ba ñëpp xam ko ci moom ñu koy berlu cant moom itam di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñu doon dimbale ko ndax ku man a sonn ci nit ñi la ku mën a jariñ doomu aadama yi la te lu mu def fàtte na ko ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di fekk di suñu digg ak moom ak mboolem ñu fi teew ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh شهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحبس والسفر falaahi bi kawni abd rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada mugnin anin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqihi